<laughs> Ah, alors ñu ngi leen nuyu Momo Jeanne voilà les filles leen nuyu di nuyu euh, téléspectateur Sen TV voilà kontaan ñëw ci rendez-vous bi. Mm-hmm. et voilà c'est un plaisir. Eh. tout à fait ñu ngi leen a baax et puis di wax rek bon di waxtaan. <laughs> waaw comme ñoom li ñu wax rek defe naa ne moom euh, rendez-vous moom. Euh, dafa yàgg neex. Mhm. te day gën a continuer di neex kon nag tey dina de incha allah. <laughs> kon tey dafay a neex incha de retour dégg naa de côté bee. kon <laughs> moo tax tey ma taxaw ko de bii <laughs> wax moom loolu dama ciy jàng rek. Hmm. ñàkk lu ma fa baakari def nag daa sonnoon si pousse à gauche daa taxaw si digg bi mu daaneel ma mais jug naa taxaw naa fi. ci loolu namm la rek xanaa. namm Mouhamed namm Mama namm ñi bokkal plateau namm ñi nga xamante ni ñoo ñu seetaan tous les soirs sur rendez-vous. si kanam tuuti bu ñu ko temps bi mayee ak people ah bu ñu ko temps bi ko temps bi mayee. parce que fan yii bëri na sinon je réfléchis à te reviens. ayca <laughs> kon baax na donc ci ci waa safari la ñuy ñëw man man man man bien. que ñu waxtaanee tube bu bees bi nga xamee ni moo di allo mais avant tube bi man bëgg naa leen laaj benn question boo xamee ni euh, yàgg naa leen ko guuxal mooy lan moo tax lu ngeen génnee lu ne rek mu nekk it <laughs> loolu daf ma jaaxal quoi vraiment lu ngeen génnee lu ne it lay ah, ah, je pense dañuy sant yàlla rek ah. ah remercier sénégalais yi ñoom ñi nga xamante ne ñoom bu nekkee it rek ñoom ñoo ko def donc euh, sant yàlla daal sant yàlla vraiment hmm. ooy moo tax daal moo tax ngeen génn ci allo bi waaw loolu la ñuy ñaan yàlla ndax saa liggéey rek ñaan yàlla mu doon ay it di dem donc euh, voilà dañ leen koy jox tout le temps ñu def ko it uh-huh. kon yàlla na it yi di gën a continuer yàlla na gën a <laughs> xam nañu ne que yi allo bi également moom mi ngi ci mi ngi ci yoonu bëgg naa ñu seetaan ko itamit parce que son boo xamee ni euh, askan wi ku ci ñoom mi ngi lay laal surtout xale yu jigéen ñi ñoom ku ci ci ñoom mi mi ngi <laughs> am na nu mu dundee quarantaine am ah genre nooy dundee sa quarantaine maquillage <laughs> waaw xanaa madame Diatta nga ci yàlla. waaw bu baax kon suñu